ndax ni sëriñ Isaaqa tooge ak rakkam yu baax yi mu dendal sëriñ Abdou sama toog nii sëriñ Amsatu toog nee bokki taalibe bi yëpp toog kon sëriñ bi moo santaane jataay bi demee nii sëriñ bi kàddu yim mu doon yónnee dafa delluwaat rek ci tegaat bokki taalibe bi yëpp ci yoon gën a gindiwaat ñëpp gën bëggaat ñëpp gën a dal kenn ku nekk gën a xool fii ñu la tegloo sa tànk foo sëriñ tubaa teglu te mooy ci ak jub mooy ci jaamu yàlla mooy kenn ku nekk nekk ca lañ la nekkuloo loo nang ca war a nekke te wattandiku lépp luñ la nekk loowut wala walla lislaam bëggu ko te Serigne Touba ni ko sëriñ bi di waxee rek la yonent bi sallallahu doon digle di ko jàngale mu jóge ci boroomam loolu rek la Serigne Touba di jàngale loolu rek la Serigne Touba di leeral loolu rek la Serigne Touba bëgg ñëpp jaar ci Serigne Mountakha mi itam jàngale waat njàngaleem Serigne mu Touba moom rek mooy yitteem kon bu demee nag ba ci biir doxin yi ak ak ak ak ak yi doxe ay lënt di am ay jaxasoo di am ay coow di am war naa delluwaat ñëpp teg leen ci yoon kenn ku nekk xam yoon wa nga war a jaar kenn ku nekk xam la nga war a wattandiku nga wattandiku ko kenn ku nekk xam la nga war a def ci lu baax nga di ci góor góorlu te tu juñu na ko léegi ñuy góorgóorlu ci def lu baax te yàlla tax góor góorgóorlu ci wattandiku ab safaan te yàlla tax sun kem kattan ten di ko seereel sunu borom loolu lépp nag buñ ko dee leeral bëgg li ñuy wax liñ ci mën a xam ñu xam ko ci xam ne sëriñ bi moom ak laabiire ak dimbale ak teete ñëpp mooy li ne ci moom mooy li ko tax di wax loolu nag i saalu wax ji mooy fan yi ñun ñëpp yëg nañ coow lu jëkk ju jóg ci àdduna sëpp te coow la sabab sa mën nañoo wax ne mën nga jóge jóge ca soxna soo si ñu wax soxna Aida Diallo kenn ku nekk am nga ci yëg-yëg kenn ku nekk am nga ci xalaat kenn ku nekk am nga ci métit ci ay wax yu jóg jóge fee jaar fee jëm fii dem nag ba wax ji di metti ci biir taalibe yëpp xoli taalibe yëpp da ci am ñag waaye dem ba wax ji yëpp di sowaat sëñ bi gannaaw day sowaat ci sëriñ bi nag sëriñ bi moom nag jekk day leeral li mu nekk soxna soosu ñëw na fi ñaari yoon sëñ bi toog naa moom ñaari yoon yoo xam ne benn bi teewe naa ko ak ay bokki taalibe lam wax soxna si mooy sëriñ Touba dafa digle santaane bind lim bëggee nag ay taalibeem yi so ci moom doxi ni mooy la yàlla bëgg yonent bi bëgg ko mooy ne ci ak jub ne ci lu leer ne ci lu rafet lu jubut leeru rafetut ñu wàcc ko fa loolu la ko sëriñ bi wax ci njaareem waxaat na ko ca Tuubaa itam dañ màggalee ba teg ci ay fan waaye dafa mel ne gindee googu ba léegi des na ay wax di jóg di jaar fu nekk wax ji dellusiwaat ba ci biir sëriñ bi dellusiwaat ba ci biir kër gi ba ci fan yi ñëpp dégg ay wax yu jóg yoo xam ne wax jooju bu ci sëriñ bi waxut dafa mën a jur lu bari ndax bari na ay taalibe yoo xam ne am nañu leen naqare loo xam ne kenn ku nekk yaa ngi xalaat noo saafara sawal ba tey ci bëccëg am na ñu fi ñëw ñoo xam ne ba wax sëñ bi wax na leen ci biir wax ji ne leen na ngeen ànd seen sago na ngeen ànd ak seen xel ndax sëriñ Tuubaa xeexut xeexluwut waaye ñoom fañ mujjële seen i wax mooy nin la bëggee ñëpp bëggee la nii duñ seetaan dara lu yàq sa duñ seetaan lu yàq yoon wi buñ fi jógee lun mën dana ko def sëñ bi dalal ne dalal nangu ñoo dal kon nag faawu sëñ bi wax lim war a wax moom ñu xam ne sëriñ bi lii sëriñ Tuubaa wax mooy la ne ci moom fawut faluwut du ànd ci caaxaan du ànd ak caaxaan dëgg li ci la nekk dëgg lay dëgg digal ñëpp mu ne nag soona soos ginnaaw nga xam ne dafa jàppee boppam taalibe sëriñ tubaa ñëwoon na ci moom digal na ko li mu war digal taalibe sëriñ Tuubaa yëpp ba noppi nee na soxna Aida ak njabootu Seex Béthio gépp am nañ seen bunt muy sëñ Seex moom sëriñ Saaliwu nañu ca sooy moom muy kilifa ak sëriñ Seex lu muy wax sëñ Seex la koy waxal ñoom lu ñuy wax nañ dem wax ko sëriñ Seex loolu la sëñ bi wax bëgg ñu ñu xam loolu ñëpp dégg loolu ñëpp gëm loolu ne sëriñ bi foofu la nekk sëriñ moom wutut waxumay farfar loo waxumay caaxaan waaye dara lu leerul dara lu Sëriñ Tuubaa dara lu dëgg doxu ca nekku ca xalaatu ko bëgg yéene na ñëpp jàmm nag ba ñëw ba egsi ci moom boo ko waxee dana la wuyu boo ko laajee dana la tontu waaye wax jaak tontu yëpp nag mooy jaar ci salaatul mustaqim jaamu yàlla ngir yàlla na ko yàlla santaane yonent bi waxee ko ni doon taalibe Serigne Touba te moo wax na ko ci waxam yu bari bala ngaa mën a doon taalibe Serigne Touba da ngay doon jullit àqan mooy li julli li jullit laaj lépp nga def ko door doon taalibe Serigne Touba wax na ba tàyyi itam ne ginnaaw dañuy jébbalu joxe suñu bopp nit ki lu muy joxe na fexe ba muy lu baax nan fexe ba sun bopp baax ba noppi na doon ko jox Serigne Touba jàngale na ko fi ba tàyyi loolu rek la bëgg ñu di ko gën a xam ñu xam ne fu dégg ay caaxaan wala lu dul noona wala lu jëmul kër lu jógewul ci moom yëgu ko santaane wu ko àndu ca loolu daal la sëñ bëgg ñëpp xam nga sëñ bi daal ci dëgg la nekk dëgg li ngi digal ñëpp nee na soxna soosu nag ginnaaw ñëw gi day andi ay lëj andi jaaxle andi yàq mën dem ba andi sax lu nekk ci biir ci biir taalibe yi ñu mën caa jàppandi seen bopp wax dëgg yàlla nag tolluwu noonu sëriñ mooy jaboote ñëpp mooy kilifa ñëpp waaye kenn ku nekk am nga sa bunt kenn ku ne jaar sa bunt sa bunt booba nag mooy mooy buntam mooy seen bunt mooy yilif ñëpp coow loolu nag la sëriñ bëgg mu jeex bëggit fu waaye dem yóbbaale ko fa moo tax bëgg ñu def ko jataay bii ñu xam ne sëriñ fii la nekk fi la nekk loo ñëpp kenn ku ne na nga xool sa bopp jéem a jubandi sa bopp jéem a mel na sëriñ Tuubaa bëgg ab taalibe mel ni ku ko deful nag ñu yàgg sa bopp da nga gis sa bis ndax sëriñ Touba moom kuy làqu ci moom da ngay mel nam bëgg ab taalibe mel ni mu nangul la sax làqu ku ko deful nag lépp loo nekkaat loola ci fekk loola ci fekk nga xam yaa ko yóbbu sa bopp Serigne foofu la nekk Serigne Mountakha foofu la nekk loolu jantaane ne ko ñëpp yëg moo tax mu loo ko bokkam yu baax yi ne man seen surge bi naa ko wax ñëpp dégg ko loolu may wax ci ndax sëñ bi daa wax ay yoon ne na ñëpp xam ne muy soxna ay jàlloo ak njaboot Cheikh Béthio gépp xam kenn ku ne xam nga Cheikh Béthio li mu am Serigne Saliou lépp lu mu am Serigne Saliou Serigne Mountakha nag loolee da yokk waaye du ko wàññi kon ñoom ñëpp jox leen ndigal dellu ci Serigne Cheikh Serigne mooy Serigne Saliou mooy borom kër ga ku bëgg a dëkk ci kër ga da ngay da jaar ci buntu bi dem ci borom biir kër borom kër ga dellu si ci moom mu ànd yéen ci loolu loolu la sëñ bi santaane na ñëkk na ko ñëpp xamee noonu ñu ngi jëbul lépp sallallahu alayhi wa